waaw beneen salaamaaleykum wa rajo Dakar di ziar kullu cet ba cet waaw bëri bëri bàyyil yàq bopp bi ah non doo changer quoi Mbaye Land naka la lu bees nag lu dëkk bi wax gars yi dialogue bi kañ la ah dialogue bi jàpp ñu data
non dama doon yee gars yi rek yow tamit booy yow jaay perek nga rek sinon nice lu bon nit ñi ñi ngi wax waxu datu élection yi yow nga waxee waxu dialogue man daal kii jaaxal na ma quoi Macky Sall amul kenn constitution bi kenn bindu fa dialogue constitution xam luñ ko wax conseil constitutionnel jàppal date ñu bëree bu ñu bëree ñu wulli leen wulli yu metti jël suñu pouvoir delloo ko réew mi delloo ko peuple bi loolu lañ leen wax
non yow bëri dafa mel ni doo comp gars yi li ñuy wax quoi mais affaire bi il faut que ñu am dialogue pour fixer date élection yi waxuñu pour ma jàkkoor dialogue pour Macky Sall euh, des ci pouvoir bi wala affaire yu demee noonu mais pour xam ban date parce que am na ñoo xam ne ñu ngi naan le 10 euh, le 10 nu mu tudd le 10 euh, mars mais est-ce que gars yi le 10 mars du arrangé du arrangé ñu bëri ah koor gaa yi ñëw ah koor gaa yi ñëw campagne électorale biir koor day métti de mais non mais je sais que il faut que ñu dialoguer quoi pour xool euh, fixer date u deux tours yi tu vois ak passation de service bi kañ lay doon
yow gis nga lu ko gis nga saboteur nga yaa ngi wax ba ngay booy terminer sax danga naan xaar xaar xaar gis nga lu ko euh, ça fait soixante ans ñu nekk ci ci esclavage soixante ans yi ni ñuy nekk ci esclavage dans moins de deux mois nañu war a jël sunu indépendance sunu indépendance normale yaa ngi may dégg bu ñu kenn sonal naan dañuy dialogue amatuñu luñ fiy dialogue li ñu Macky Sall li mu war a xam yëpp xam na ko ñi mu war a jaral nga jaral Ousmane Sonko soxlawu ko soxlawoo naa ko Ousmane Sonko candidat la am teg na ko moom am na candidat am na tëgg bëre bi na sifflé nit ñi bëree nga naan ma ay nangam sangam sénégalais yi ku ñu ku ñu tànn mooy loolu lu ñu lu ñuy dialogue dialogue pour lan lan moo fi am ba ñuy dialogue conseil constitutionnel def na li muy def conseil constitutionnel jëlul décision nee na ko jàppal def élection yi kan la war a waxal. moom moo moom moo yor pouvoir bi fu mu toll moom mooy décider kenn waxu ko warul laaj avis kenn waaw kenn nee nañ ko yow jox nañ la doole bi yëpp yéegi yëpp ngi si yow jëlal suñuy date élection lan moo fi jar ay consulté ak ay kii da ngeen ko bëgg a tëggaat comme ça ay du buggaan ñëw fii di ñu sonal ay kariwaar ñaar fi di ñu sonal yow maa ngi doog xam sax fi nga bokk yow ndekete PDS bu bon nga yow Louga yow maa ngi doog xam ne yow doo société civile doo dara yow PDS nga bokk waaw. PDS nag ñoo yàq réew mi waaw 2019 ñoo boycotté bàyyi fi Macky Sall tere Sonko jël réew mi bii paa ngeen ñëwaat di daanelaat Sonko su ko di ko sonal di ko di ko indil naan da ngeen dem ay ambassade ak affaire yi xaw ma assemblée affaire yooyu loolu am na yoo xamante ne ah xel mënu koo nangu quoi da ngay bàyyi sa affaire saboté yi quoi ñun dañu sonn fuñ toll nii gis nga booy yi génn prison nu ñu sonnee ah wala yow si xalifa est-ce que yow bokkoo si xalifa yow dafa mel ni yow genre Assane kii Assane kii yooyu Assane Diouf yooyu di ngarale naan Sonko naan Xalifa Sall def naa genre yooyu nga quoi société civile lay mbubu logo boo yow fii gars yi bukki yi sàngoon deru bëy rek ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp taay ñu ngi leen di génne en grand ji bi panel bi taay dafa neex de
non booy Moscou comme yow doo comprendre mais dama la ne pour ñu jàpp datu élection yi il faut que ñu dialogue il faut que ñu waxtaan mais loolu laa la wax dialogue boobu moo des mais yow ba léegi mënoo comprendre mais booy wéet nga ci site bi de nu mu fa demee noonu xanaa yow yaa yor caabi site bi léegi xanaa site bi yoo lañ ko bàyyil mais wéet nga ci site bi de.
man sa jàppise yóbbul ko bu yow nga ne ñëpp dem nañ bàyyi ma fi sama yoon nekk si bu yow nga ne ma fii laa nekk loolu sam fenition ni fra man dama ne la si constitution bi fan nañ bind wala waa waa conseil constitutionnel fan nañ wax président il faut se concerter pour pour euh, pour pour, pour euh, définir une la date des élections fan nañ ko bind wala yow da nga bëgg ma po ma posewaatal la kii bi euh, décision bi gis nga lu ko bul jéem fooyee sa xel quoi di sonal nit ñi yow saboteur nga toogal rek Macky Sall jël date ñu wulli gaay mu jeex waaw yéen ay da ngeen ay xaar
salaamaaleykum man la Bana man la Bakary Ndong siyaar naa leen bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sama bopp di dellusiwaat rek gëj fi lool nag li ko waral moom xam ngeen ko xam naa ko ma toogoon jamono di gis lu may metti sama dëkk ma man ma defoon yaakaar sama réew mel ni ni réew yëpp wala mu gën réew yëpp waaye bu ma toogee gis lu koy delloo ginnaaw te benn doomu aadama wala groupe wala nit ñun tuuti toog bëgg ma ko teg benn gis rek gis laay am mooy ñooñu xëy ak ñoom rek sama làmmañ bu ma ko amoon nag sama kàddu def kook ñoom ndax man loolu rek laay dund laay xalaat su ma yéenee sama réew mu mel ni réew yu baax yëpp yaakaaruma ci sama réew dara réew mi yaakaaruma ci moom dara ba ma màggee ba léegi yaakaaruma ci Sénégal dara yoraluñ ma dara yaakaaruma fa dara maay am di fa yóbbu nag maa fay dem vacances tuur fa sama weccet ñëwaat Sénégal jàngaluma Sénégal dundaluma Sénégal defuma deful dara ci man lu ne maa ko def ci Sénégal Sénégal deful dara ci man dëgg la fa laa juddoo nag bëgg moo ko bëgg moo tax ma di ci daw nii mel ci nii toog chaque jour di xool la fay xew mu am yaakaar mu mel ni réew yëpp wala mu gën leen waaye nag bu ma gisee groupe suñ tuuti doog toog suñ kaw loola boo dee gor ama bu rut ñëg boo mënta xeex ak ñoom nga wax lu tax ñu xeex ak ñoom ndax loolu laa gis noteel dafa jeex ci jamono bi ñu ne waaye noteel nag bi ci gën a yéeme te gën cee bon gën cee yées mooy ki ko defee maa tey xam nga ni mën na la not ci ay pexe ngay xalaat nan la def ba mu not la comme ni àdduna bi demee fii nii surp politique mondial bi ni mu demee nga xam ne borom alal yi bu ñu la notee tamit dañu teg seen i affaire moo xam nga dem jublu fa mais nag moo xam nga jublu ca liggéey di yokk seen koom ak seen doole ñu ñoom tam ñu yokk seen i réew mën na ne loolu moom nangu naa ko waaye nag bi ma dut nangu mooy nit toog sa alal toog ci sam réew gënu la gënoo ko nga nga teg ko fa mu jël toog def la moom bëgg nag loolu nag laa du nangu moom loolu moom loolu moom jaral na ma man ñu ñu ñu ñun ñëpp ñu yem ca ñun ñëpp ñu yem ca reyante ba jeex tàkk ñun ñëpp ñu yem ca loolu laa gis te loolu laa gëm nag lu ma gëm laay wax. moo tax gor yi ne ci groupe yeeg whatsapp yeeg yëpp rek dañu ne woon tekk ndax am na mbir fu mu toll moom da nga daan tekk di xool tekkaay googu nag moo jàpp ñëpp ba tey ndax ki bëggoon a yàq di yàq di yàq di yàq di rey nee na tekk def lu tuuti lu positif waaye nag. ab workat ab saay-saay ak doomu xaram lépp lu mu def rek gëm da ngay xam ne am na lu mu lal ci ginnaaw du rek lu mu gëm du rek lu mu bëgg waaye nag bàddaloo doomu xaram mbaam buy def lu muy def da ngay wëlutikuwaat na teg bu wëlutikuwaatee di woo teg jàmm ak ñi mu tëjoon mu leen di bàyyi di def lu xaw a tane loo xam ne moo tane di rey moo tane tëj li nga def mooy na tekk di ko xool ba xam fu muy mujj ak lii mu nàpp ndax mbaam la doomu xaram la workat la mbaam la doomu xaram la workat la kooku nag boo seqeek moom tekk rek moo la cay may doole waaw mbaam da nga ne tekk ak moom doomu xaram ab workat lépp lu ngeen seq bu cay commencé bu fekkee yow nit ku baax nga munoo njëkk a dóor ndax yow loolu la jàng bu dee da nga wor ko comme moom nag dañ naan ku njëkk a wor rek yaay moom ndax boo ñaari workat ku njëkk a wor rek gañe nga mais nit ku baax ak ab workat nit ku baax ak workat mooy noonu la réew ma ak nit ku bon ku yées ab workat lenn lañ mën buy def lu baax nga ne tekk di ko xool nga ne tekk di ko xool nga ne tekk di ko xool nag waaye du tax nag nga wóolu ko ci dara ndax workat la mbaam la workat la mbaam la lu mu def rek am na lu mu ci parel kooku nag moom lépp lu muy def da nga naan tekk di ko xool ba xam la ne fii lii muy def lu mu ci mujje lu ne nit ñaa ngi koy wax lu ne ñaa ngi koy xalaat lii moo tax lii moo tax waaye mbaam ak workat lu mu def rek am na lu tax waaye nag boo seqee moom ci loolu te yow doo workat doo njëkk kuy njëkk a wor doo njëkk kuy njëkk a yàq da nga naan tekk rek fekkee daa dellusiwaat ci mbaam nga nga dellusiwaat ca mbaam nga rek waaw fekkee nag dafa gëm na nii bu ko defee dem ci jàmm ah yaa xay bi mu noppalu nga noppalu rek te xeexu bàndeek police moom jàmm rek a leen jég rayante rek lay nekk guerre moom jàmm jég ñëpp guerre jàmm jég ñëpp boo ko mooy rayante rek waaye bu jàmm amee ay ñi war na dee noppalu waaye mbaam moom ah bu dëkkee defi mbaamam ah nga teylu rek ba continuer mbaam nga fekk si ko ci mbaam ba rek jàmm ñëpp a ko bëgg waaye lu jàmm nooy na de ci ñëpp nag waaye fitna moom ñun ñëpp xejul ci kenn kenn jigu ci kenn jigu ko jiguñu jigu ko jiguñu fi mu nag moom ah mu ngi doo nit ñaa ngeen tekk di ko xool ba xam nu muy def ma ne ko réew maa ngeen tekk di ko xool ba xam lan lay def ndax workat la am mbaam la doomu xaraam la workat la mbaam la doomu xaraam la ñi mu àndal ñëpp ay workat lañ doomi xaraam lañ mbaam lañ kon nag lépp lu ñu def moom tekk rek di leen xool bu fekkee yow doo workat te yow lu baax rek la jëkk moom nga bëgg sa réew nit bu defee paawoo ne day def lu baax non bu yoral ji ko jàmm ja nga yoroon rek taxaw fa nga taxawoon ne ko nag benn couleur laa yor man couleur boobu saa moo ci woye mooy lu baax lu baax laa man saa boo ñëwee ci baax ñu nuroo waaye nag boo demee beneen couleur nag moom ma ah du ma mën a taxaw nag di baax rek continuer ba mu woon la nag sama jikko nag mbaax laa yor waaye nag boo àndee ay itam fekk ñu fi jàmm jigut aw ay jigut kenn jiguñu jigu ko aw ay jiguñu jigu ko jigu ci kenn rey nag reynu nag bu fekkee ne ngóor la juum na ndax démb rek laa ci doon waxtaan sama benn xarit ma ne ko ma ne ko ba mu fi toogee naan moom ci làmmiñam naan ak i gaayam naan lii fi xew ci réew mi bu fekkoon beneen réew la junna doo rey a rey naan li ma rey dama koo xeeb man maru moon a rey lu toll nii bu doon beneen réew ba ne rey naa lu ëpp lay benn nit bu dee rek di erreur ci ay xëccoo woo xam ne alalu doomu aadama yi nga yor ragal ko ba nag moo tax ba tey lii yëpp am am fa xam ngeen li ngeen def ci réew mi mooy yàq ngeen jaxase ngeen ay kaña ngeen ci gerte ay ay golo ngeen ci gerte yàqkat ngeen loolu tax ñu ne téye ci mbir ya bañ a bax waaye adduna bu jeexagul moom nit lu mu cay def na ko xam adduna bu jeexagul nit lu mu cay def na ko xam te fitnaal ay nit ba ñu daw génn nag ku weddi laajal yaay jàmme du la jëriñ dara yaay jàmme tey am réew la jiitoon waaye mu tey bu doon bu ñu doon maye gàmbi doo jóg bu doon toogoon gàmbi naan ku ku ree ree ju neex fukki fan moom gàmbi du ñëw kon du bokk ci ñooy moom gàmbi ku yëru daal laa yàlla jàmm nit ñi moom ba leen tegee fitna ba dàpp leen tëj leen exilé leen rey leen après temps moo lay faj yaa ñaaf ka ñaaf ka tak nangam la toog gàmbi dem ba naan miim réew maa ko moom mu butu ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen loolu jaamu fi loolu nag nit a ko xam mbaam xam ko ab yàqkat xam ko ab doomu xaram xam ko warkat xam ko moom li mu bëgg rek lay def après du xam conséquences yi la na ko fay fekk mais nit ñi ci àddina xam na ne suba am na suba am na suba am na suba nag nit a koy xam yaa ngeen jëf loolu daal laa ñëwoon tey di ko duggee ci biir jotaay bi wax li ma xalaat ci jamono bi fii mu niir yi toll ni ndaxte kaay gi mu ngi ci ñëpp gëj naa déglu nag rajo yeeg télé yeeg nit ñi waaye damay xool rek ñaari situation bu ndaw rek ñëw sama téléphone ma ana xool ànd ceeg sama xel fi situation toll ndax mbir moom booy xool télé gi donte doo déglu yenn waxtaan yi sax mais di nga gis affaire yi fi mu toll rek di nga xam ne fii la mbir yi toll loolu moo ci jàpp mais siyaar naa la yéen ñëpp yéen wala Dakar jaa ngeen jëf. waaye li ma dal sama sama leader Idrissa Seck moo dal sama grand frère fii ci Macky Sall su ma ko nee Macky Sall daf koy saaga te moom Macky Sall xuloo nañ ci ba mun a këcc mën a këcc sama grand frère moo bokk ndey ak baay ba mujj daanaka bu ñu waxtaanal ci àdduna ak suñu liggéey la ñuy waxtaan waaye mbirum Sénégal moom duñ ci wax. ndax toll na ci ci Macky Sall foo xam ne man toll naa ci bañ ko foo xam ne ñun ñaar mënuñ fi mënatuñu la woon a wax tànn su ma ko seeti woon dëkk bi mu nekk dañuy dañuy mujj génn ci débat Sénégal duñ wax sax ci Sénégal waaye dem na ba ma tuddee Macky Sall mu saaga ko noonu tam laa def ci Idrissa Seck non lii am ci Sénégal moom mu jekki daal di amu ci benn réaction lu dul di posté yoo xam ne moom ak Khalifa Sall di posté yoo xam ne kenn xamul lu mu doon ñoom tamit wax dëgg yàlla seen bëggug Sénégal des na intérêt daal baaxul bëggoon naa ma falu de waaye daal intérêt dafa ëpp torop te dafa fës lu ne mën nga ko mais sa intérêt da nga cay dem ba dootoo amati arrêt bëggoon naa ma falu de xam naa nag ñu bëri dañ ko jëlee woon ay kaf waaye moom rek laa gisoon mu falu Sénégal ci kaw politique laa ko waxee woon nag ndax xam naa moom nitu warkat la boppam rek la gëm waaye nag situation Sénégal fa mu toll woon moom laa gisoon mu falu moom laa ko moom laa gisoon man loolu laa gisoon waaye du tax da loolu dama koo bëgg loolu dama koo gëm non mais fi situation Sénégal toll woon nga xam ne tiitaange dafa am ci ñaari côté yëpp moom laa gisoon mu toog dëkk bi na teg loolu laa gëmoon mais jarul sama cee sori naa waayi noonu yaa ngeen jëf
mais bari yow lan nga xamul waxuñu waa conseil constitutionnel waxuñu ñu organiser élection mais xam nga conseil constitutionnel mënul da- jàpp datu élection est-ce que xam nga loolu bu wax toogal nga naan conseil constitutionnel bu jinne soxlaa Dakar ku yéeg daanu demal te ni xamoo sax li ngay wax ngay constitutionnel mag yi na décidé ñu door leen door yi métti yi ñëpp PDS ak ak ñëpp parti civil ak ñëpp ñooy dóor jël réew mi defar ko nekk fi naa ñooy cons- constitutionnel gis nga lu mu génne loolu lu mën mag yi moo ko mën na ko def gaaw taf taf amul ay dialogue ay consultation
non fi mu toll nii yow yaay wax di wax naan ay conseil constitutionnel man romb naa conseil constitutionnel li ma la wax loolu day am par A ou B parce que il faut que ñu toog concerté wu pour élection mun a am date bi il faut que ñu toog déggoo ko sa waay yow xanaa fan nga jógee je sais pas loolu laa bëgg nga comprendre ay dóor fii dóor fële yooyu yëpp c'est des faux problèmes tu vois Euh, l'essentiel en est que daal li ma la wax moom dialogue boobu ma la wax moom concertation boobu moom foog mu am
dialogue leen rek loolu ñëwee rek jomaay def leen ko jomaay moom mi ngi foofu toog di leen xaar
Euh, comment ça s'appelle Bari non Bari da nga baax baax borom bi xaaral man ma dem dallu ji quoi parce que yow ko polémique ngay wut waaw dama lijjanti mo Lamine Baara mu ñëw
salaamaaleykum waa allo Dakar noo leen def nuyoo naa ziar naa leen di leen wax ni que bañ bëri bëgg a bëri li muy wax ay setataal di wax yëpp ay fen la dafa ñëw pour tour lëndëm askan bi ñu naan Macky Sall moo bëgg jàmm c'est-à-dire patati patata ay fen la ay nar yu set wecc ay fen ay fen ay fen mille fois ay fen li fi ne moo fi ne mooy américain yii réunion keroog ca Maison Blanche ñoo ko ordonné waxuma la sax ñoo ko wax dañ ko ordonné ni ko bàyyil détenu politique yi ngay jël ni Macky Sall ndekete yow yaay fenkat bi yow yaay problème bi yow yaay lépp bàyyi Ousmane Sonko bàyyi ñëpp comme daf ko ne bàyyil Ousmane Sonko bàyyi ñëpp xamul naka lay def Ousmane Sonko mu daal di wooy Atata woo kii l'autre là comment il s'appelle euh, euh, Alioune Tine ne leen dem leen ngeen wax Ousmane na génn Ousmane ne leen génnuma na gars yi génn ñëpp ba mu set wecc man ma soog a ñëw bu ma fii def vingt ans sax du ma noqoo génn tànk ñëpp génn doomu jàmbur yi ñuy tëj ñi pour noter ñooñu nañ génn ba pare fu mu ne nii ñu ngi accélérer la cadence pour xale yëpp génn ndax Ousmane mën a génn parce que xolal dañ leen ko ordonné ba pare dina leen élection yi da ngeen ko tëgg te le 2 Macky Sall yow pare nga fi le 2 avril mooy jour J bi nga Macky Sall yow da ngay dem tëggal élection yi nu mu gën a gaaw lii yëpp ay layam layaamam la comme wóoru ni ko Dambo ji waxee ay tappale la ay layam la ay surtout xoolal may nu Ouais, ressemble- ressalam alaikum. J'avais un appel et tout ça là. So, euh, je pense que c'est Pam Daouda qui est là. Alors, euh, j'ai dit, euh, je vous dis bonjour. Di wax ne que exactly li ma wax moo fi nekk te du dañ. Macky Sall dina bàyyi ñëpp Ousmane Soga tegu si. Ba pare te élection yi dinañ ko tëgg. Macky Sall instant bi xoolal dafa yónni Aïssata Tall Sall pour mu ñëw satal ko pour mu ñëw sang ko waaye du mu sa set parce que ñun ñi xam nañu. Xëy na waa Sénégal ñoo xamul waaye ñun ñi nekk bitim réew ñoo xam nañu. Macky Sall dafa pare te dañ ko ko poje ne ko bàyyil nit ñi ndekete yow yaay salopard bu mag bi wax baa ngoog dégg nga dana bàyyi ñëpp benn par benn parce que dafa meegul sens ndax moom pendant cinq ans dugal ci ay milliards pour Ousmane Sonko bu mu dem élection tëggal problème mu Adji Sarr lu ne ñu dugg ci fen rek tëgg ay milliards yu bëri xëy benn suba di bàyyi naan yow yaay wut jàmm ban jàmm nañu may suñ jàmm waaye ñëpp xam nañu xëy na ñaar xamul waaye xaw ma ñett xamul waaye ñaar xam na dañ ko ne mu génnee ñëpp Ousmane ne ko du ma génn tant que ñëpp génn nu moo waral lii dégg nga te dina tëgg élection yi te dina noqoo ñibbi dem yoonam laa wax le deux day dem ngeen baal ma ci kàddu yi parce que on est tellement fâché que les gros mots sortent comme ça